الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellusiwaat ak yéen émission bi nag ma koy tàmbalee ci ay nuyoo di nuyu képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci banlieue bi rawatina ci biir Dakar ak ci biir Sénégal gépp maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii di ko sant ci turu jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di ndokkeel sunu mbokk jullit yi ci weeru koor gi nga xam ne génn nañ ko te di ñaan yàlla sunu boroom mu defal leen ko ay yiw di ko ñaan ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist jamono yi nag ñu weesu gàntaloon nañu programme bi gaaw gu nekk wante àllarba gi ñu ngi doon wéy di ko def ngir rekk may sunu mbokk jullit yi ñu gën a am jot ngir programme yi gën a yaatu ndaxte ci weeru koor la ñu nekkoon ñu ci sant yàlla sunu boroom di ko ci gërëm ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist tey jii nag mbokk yi damay dikk ak yéen ci li nga xam ne du fi guléet saa su nekk ñu koy def mooy ubbi téere bu sell bi téere bi nga xam ne yàlla sunu boroom moo ñu ko jox téere bi nga xam ne yàlla sunu boroom moo ko wàccee ci sunu biir ngir mu doon ab làmp ci sunu yoon doon ab leeraay ci sunu yoon téere gu sell gi nga xam ne ci la yàlla sunu boroom wone boppam téere bu sell bi nga xam ne ci la yàlla sunu boroom waxee ñun téere bu sell bi nga xam ne ci la yàlla sunu boroom fësalee jëmm ju tedd jooju jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist téere ju sell jooju nga xam ne yàlla sunu boroom mi ngi wax ne képp koo xam ne yaa ngi koy jàng képp koo xam ne yaa ngi ciy bàyyi xel ay yool ay ngëneel rekk nga ciy jëlee yàlla sunu boroom fésal na boppam jaarale ko ci téere bu sell boobu muy biibul bi téere boobu nga xam ne yonent yi la xelal sol leen ñu bind ko mu wàcc sunu biir téere bu sell boobu nga xam ne képp ku bëgg a xam yàlla sunu boroom ah boo ko jàngee boo ci bàyyee xel da nga xam da nga gis da nga daj kan mooy aji sax ji di yàlla sunu boroom ci téere boobu nag laay ubbi tey jii jàng ci kóllëre gu bees gi naan Nouveau Testament ci xaaj bi ñu jagleel waa Efes ca aaya ñaar saar juróom-ñett yàlla sunu boroom di wax foofu mi ngi naan ndaxte ci sama yiw ngeen muccee ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayub yàlla la sama may la du peyub jëf ngir kenn du ci kaañu yàlla sunu boroom mi ngi wax foofu naan ci ab yiwam lañu muccee ci kaw ngëm te loolu jógewul ci ñun doomu aadama mayub yàlla la te du payub jëf ngir kenn du ci kaañu mbokki auditeurs yi yàlla sunu borom wax ñu foofu wax bu am solo bi ci ñëkk nee na ci ab yiwam képp lañu mën a muccee yàlla sunu borom mi ngi ñuy leeralal foofu ne kat doomu aadama bi mu sàkk bu bëggee mucc bu bëggee texe fokk mu dem taataan ci yiwu yàlla sunu borom ci kaw yiwu yàlla rek la doomu aadama mën a muccee mu yokk ci ne te loolu jógewul ci ñun yàlla sunu borom ci téere bu sell bi di ñu jàngal foofu ne mucckat jógewul ci doomu aadama du doomu aadama bi nga xam ne yàllaa ko sàkk bind ko wàcce ko fii ci biir suuf moom mooy sabab ci ban anam la mën a muccee wala kat mooy dogal ne moom mucc na texe na nit amul martaba boobu nit amul sañ-sañ boobu doomu aadama amul kattan googu moo tax aji sax ji di ñu leeralal kat ne ci ab yiwam kese lañu mën a muccee te loolu jógewul ci ñun kon ñi nga xam ne jàpp nañu ne mucc nañu te mucc googu nga xam ne ñi ngi koy ndamoo ñi ngi ko lal ci seeni pexe ñi ngi ko lal ci seeni pexe kon ñooñu yàlla sunu borom mi ngi naan leen kat delloo si leen seeni xel te ngeen xam ne man aji sax ji man rek maa mën a dogal ku mucc ak ku muccul maa mën a dogal ku texe ak ku texewul yàlla sunu borom mi ngi ñuy yee foofu mi ngi delloo si xel yi ne doomu aadama dellu si leen ci man ndaxte ci sama yiw kese kese ngeen mën a muccee moom moo ñu sàkk te mooy dogal moo joxe ruu moo koy jëlaat moo joxe dund moo koy jëlaat te moom kese moo am sañ-sañu taxaw layoog ñun yàlla sunu borom jàngal nañu wax nañu te muy am te ku nekk xam ne loolu lu nekk la mooy yàgg yàgg yàgg bakkan bii mu ñu jox dana ko jëlaat amul doomu aadama boo xam ne am nga martaba ba mën a téye sa bakkan téye sa ruu ci sa loxo ne kat léegi man maay dogal ci sama dund ci sama réew ruu te keneen amu ci leneen lu mu war a dogal martaba boobu yàlla sunu borom kese kese moo ko am moom mi nga xam ne nag moo am martaba boobu moom mi nga xam ne nag moom moo ñu sol dund moom ca njalbeen nga moo sàkk sunu maam aadama noyyi ci moom noyyi googu nga xam ne moom moo indi dund kon kooku moom moo yore dund ki nga xam ne nag moom moo yore dund kooku moom moo yore caabi ak bunt bi nga xam ne moom ca la doomu aadama mën a jaar bu mucc moo tax mu ñuy wax wax bu am solo bi ci téereem bu sell bi ngir delloo si sunuy xel ne ñu kat mucc kat jógewul ci ñun wante ci yiwam la ci yiwu yàlla ci sunu borom kon mbokk auditeurs yi loolu bu leeree ci ñun loolu bu saxee ci sunu xol kon faw ñuy def sunu kémtalaayu kàttan ngir jot ci yiwu yàlla sunu borom wante yiw googu yàlla sunu borom dafa am yoon bu mu ko jaarale loolu nga xam ne may nañu ko loolu nga xam ne nee na kat yiw la goo xam ne ci man lay jóge wàcc ci seen kaw te yiw googu mooy tax ngeen mucc nee na yiw googu am na benn bërëb boo xam ne benn bunt boo xam ne falaa ko jaarale am na yoon goo xam ne falaa ko jaarale ngir doomu aadama bu fa jaaree kat jot ci yiw googu yiw googu nga xam ne moom moo la yóbbu ba nga texee kon mbokki auditeurs yi loolu moo doon xaaj bu njëkk ci sunu waxtaanu tey ma bàyyi leen nag ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dellu si ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
ولده ولده ولده ولده
jërëjëf mbokk auditeurs yi kon ñu delluwaat ci waxtaanu bés bi bi ñu dégloo cant ju am solo jooju nga xam ne sunu mbokk Bernard Sisa moo ko fent bu neexee yàlla sunu borom danañ dellu si ci beneen programme boo xam ne danaa leen tegal cant yi mu mujj fent kon téere bu sell bi yàlla sunu borom di ñu wax ne ndaxte ci sama yiw ngeen muccee ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen yàlla sunu boroom di ñu wax ne kat mucc googu mi ngi ko lal ci kaw ngëm wante bu dee ngëm waxul ngëm gu nekk waxul ngëm gu nekk koo fëgg tey jii ne ko yàlla am na mu ne lu dëggu la yàlla am na yàlla sunu boroom am na aji sax ji lu nekk la ñépp ko gëm wante yàlla sunu boroom mi ngi dellu foofu di ñu wax ne ngëm gi nga xam ne mooy ngëm gi la may nga jot ci yiwam ba mucc ngëm googu wuute naag nga gëm ne kat moom nekk na nga gëm ne moom yàlla sunu boroom nekk na déedéet beneen ngëm lay wax nee na ngëm googu mooy nga jàpp ci buntu googu nga xam ne ubbi na ko ak jëmm jooju nga xam ne yónni na ko ci sunu biir muy Seydina Isaa almasi bi Yeesu Christ mu jël ko liggéeyloo ko fii ci biir àdduna mu ñëw yéeg ci bant bi joxe deretam ju sell jooju yaramam jooju nga xam ne musul bàkkaar musul def lu ko sudul noonu ñu jël ko toroxal ko ci bant bi yàlla sunu borom ne kat def naa ko sarax te boo ko gëmee kon da nga jot ci sama yiw da nga texe kon gëm googu la yàlla sunu borom di wax nee na Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom mi nga xam ne ci man la jóge te moo doon man ma jëmmal ko mu wàcc ci biir àdduna nekk ak yéen liggéey ci seen biir jàngal leen tëjee mission bi jël deretam jooju nangu ñu tuur ko jël yaramam jooju nangu ñu fitnaal ko yàlla sunu borom ne kat jëmm jooju laa samp muy bunt bi muy caabi ji nga xam ne mooy ubbi ngir nga mën a mucc ngir nga mën a texe yow doomu aadama bi ma sàkk kon moo tax mu ne loolu kat du seen pexe jógewul ci yéen wante ci kaw ngëm la yàlla sunu borom jox ñu benn misaal bu am solo bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees gi ci xaaj bi ñu jagleel lukk ci aaya fukk ak juróom-ñett ba sax ñu jàng ci aaya ñaar fukk ak ñett ci saar ñett ba ci ñeen fukk ak ñett am na benn xibaar bu ñu yàlla sunu borom di jox foofu nee na jëmm jooju Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ biñ ko tooñee fitnaal ko àtte ko nekkat yow yaa tooñ te fekk ñu dara luñ ko mënoon jiiñ dañ ko jël daaj ko ci bant bi yàlla sunu borom ci téere bu sell bi di ñu wax ne biñ ko daajee ci bant bi dañu daajaale ñaari nit ñoo xam ne dañ daan def naka su lul noonu nee na ñaari nit ñooñu kenn ki mi ngi ci ndey jooram kenn ki woon ci càmmooñam ñaar ñooñu dañ leen atte seeni jëf doonoon jëf yoo xam ne jëf yu bon lañu société ba atte leen comme ni ñuy atte suñu jamono yii nga xam ne dañ lay topp loo def yóbbu la tribunal juge bi atte la xool li nga xam ne moom la yoon wax li nga xam ne moom la société bi ne kat ku def nii daan bi lañ lay teg noonu lañ leen àtte daaj leen ci bant bi boole leen ak Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ñu seq ko téere bu sell bi di ñu wax ne biñ leen daajee ci bant bi kenn ki mi ngi naan ko ah yow mii de bu dee li ngay wax am na maanaam mi ngi wax ak Seydina Isa almasi bi Yesu Christ naan ko bu dee li ngay wax am na kon musal ñu te nga musal sa bopp ndaxte waa jooju xamoon na ne kat jëmm ji ñu daaj ci bant bi nekk na jëmm joo xam ne wane na ay kéemaan yu am solo ba tax na mi ngi naan ko yow mii kat loolu nga daan wane loolu nga daan jëfee laata ñu lay daaj fii waa jëfee lu mel noonu ngir nga musal ñu ñu mucc ci lii ñu ne keneen ki nga xam ne mi ngi woon ci càmmoñ ji di artu beneen waa ji naan ko kat àndal ak dal ndaxte ñun ñii nga xam ne dañ ñu daaj ci bant bi ñun kat dañ ñu tooñ déedéet ñun dañu tooñ dañu tooñ moo tax ñu daaj ñu ci bant bi dañu jëf naka sudul noonu moo tax yoon topp ñu te firnde yi génnee nañ ko ne kat ñun ñii dañu tooñ kon ñu daaj ñu ci bant bi loolu lu ñu yayoo la wante jëmb ji nga xam ne mi ngi sunu diggante ñu daaj ko ci bant bi moom yayoowul lu mel nii ndaxte musul tooñ dañ ko sosal ëpp ko doole daaj ko ci bant bi mu teg ci ne moom waajoo ji nga xam ne jëfkatu lu bon la woon mu teg ci ne ah sang bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ tey jii de boo demee ci kanamu aji sax ji boo yeggee ci kanamu baay bi boo yeggee ci kanamu yàlla sunu boroom nag ma yóbbaale da ngeen wax bi de te waa ji mi ngi ci sukuraat nga xam ne ci ay simili yu néew ruu gi dana dem mu ne jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ boo yeggee ci kanamu yàlla sa boroom nag ma yóbbaale téere bu sell bi di ñuy wax ne sang bu tedd bi dafa dellu xool ko ne ko maa ngi lay bérél ne tey jii da nga dugg biir aljana tey jii taxe nga tey jii mucc nga kon yàlla sunu boroom di ñuy won foofu lan mooy yiwam yàlla sunu boroom di ñuy won foofu firnde bu am solo mu waral mu ne mucc ñi ngi ko lal ci kaw ngëm ñi ngi ko lal ci kaw ngëm kooku nga xam ne moom mooy yoonu mucc mooy yoonu texe muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ kon ñu gis foofu ne yàlla firndeel na loolu nga xam ne wax na ko tama jàngalu leen ko sànq muy lan mu ne ndaxte ci sama yiw ngeen mun a muccee ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen bu doon doomu aadama moom mooy liggéey li nga xam ne dana tax mu mucc li nga tax tax dana mu mu mu mën a texe kon dana fëgg dënam dana fëgg dënam ne kat ci sama kàttan ci sama mën-mën ci sama doole kon bu boobaa dana ndamu yàlla sunu borom ne kenn mënul ndamu ci sama kanam nee na nu sa martaba rëy rëy rëy rëy rëy nu sa tur rëy rëy rëy rëy rëy ak noo ma jege jege jege mënuloo bàkku mukk ci sama kanam ndaxte man maa yàlla te maa la sàkk yàlla sunu boroom di ñuy bëralal foofu mbir mu am solo mooy lépp loo xam ne dab na nit te muy ay ngëneel te muy leer nañ ci sant yàlla sunu boroom te xam ne kat ñun duñu mun a ndamu mukk ci kanamam yàlla sunu boroom di ñuy wax ne mucc texe amul benn doomu aadama bu mun a taxaw ci kanamam fëgg dënnam ne lii kat dama ko yayoo lii dama ko yayoo lii dama ko liggéey kon war na ma mbokki auditeurs yi yàlla sunu boroom di wéy di ñu wax ci téeram bu sell bi ci saar yu am solo yooyu ma leen jàngal sànq ñu gis ko ci xaaj bi ñu jagleel waa Efes te mu nekk ci kóllëre gu bees gi yàlla sunu boroom di wax ne ndaxte ci sama yiw ngeen muccee ci kaw gëm te loolu jógewul ci yéen mayug yàlla la sama may la du peyub jëf ngir kenn du ci kaañu nee na loolu du payug jëf yàlla sunu borom di delloo si sunuy xel ci li nga xam ne moom mooy yiwam te mu koy wàccee ci sunu kaw nee na fayantewuma ak yéen ay jëf fayantewuma ak yéen ay jëf ndaxte bu doon fayanteeg ay jëf kon waajooju nga xam ne mucc na texe na te mu ne woon Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist bërëb bi nga nekk tey jii fa nga jëm yóbbaale ma mu ne ko texe nga kon bu doon fayantu ay jëf la rek kon kooku du yegg foofu mukk bu doon fayantu ay jëf la rek kon doomu aadama du jot mukk mukk ci yiwug yàlla Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist daan waxtaan ak nit ñi di waxtaan ak taalibeem mu ñëw na leen dafa am lu yoonu Musaa indi te yoonu Musaa mooy li nga xam ne yàlla sunu borom jàngaloon na ko banni Israël mu nekk ci tawreet yàlla sunu borom ne woon ci yoonu Musaa boo faatee nit boo jëlee ab bakkan ñu jël sa bakkan boo jëlee loo moomul ñu tëj la boo njaaloo ñu faat la wax lu bari lu bari lu bari lu bari Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist na ay taalibeem ne nit ñi dama leen di wax ne waxuma sax nga dem jël bakkanu nit waxuma la sax nga dem faat nit wante bu dee sa xel mi ngi xent ne kat waa ji dama ko war a faat wala waa ji rek moo bon wala waa ji ni ma ko sibee nee na yàlla sunu borom jàppee ne la koo xam ne tuur nga deret jël nga bakkan Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yokk ci ne moom mi nga xam ne dafa xamoon li nga xam ne moom mooy yàlla sunu borom daf ko xam nee na waxuma la sax nga dem njaaloo nee na jëmb ji nga xam ne mi ngi xool muy ku góor wala muy ku jigéen yaa ngi koy xool sa xel nekk ci moom nga ne kat kii su ma ko sàkk woon nee na waxul sax nga jëf nee na boo ko xentee sa xol rek kon jàppel sa bopp ne njaaloo nga nee na waxuma la sax nga jël loo moomul wante bu sa xel xentee màccee ne kat lii waa ji am kat war naa ko jël ci moom donte jëluloo ko sax amuloo pexe jël ko nee na jàppal ne bindal nañ la kat yow jël nga atte bi ñu teg ki nga xam ne moo jël yow mi nga xam ne sa xel dafa xent lu mel noonu atte boobu lañ lay teg kon kan moo mën a mucc kan moo mën a mucc moo tax mu ne bu leen jàppee seeni jëf ne kat mën na tax ngeen mucc ndaxte boo leen jàppee seeni jëf ne mën na tax ngeen i mucc kon xamagu leen yàlla seen boroom yàlla sunu boroom mi ngi xaar ci ñun yiwu goo xam ne set goo xam ne màndute boo xam ne dafay tàmbalee ci sunu xol jëm ci sunu xel ñu jëfee ko yàlla sunu boroom nee na loolu laay xaar ci yéen yàlla sunu boroom nee na mi ngi xaar ci ñun xol goo xam ne laab na xel goo xam ne mi ngi xent loo jub ak jëf yoo xam ne jëf yu set la bu ñu mënee wone ay jëf yu set yenn saa yi xel meeg xol mi am na leneen lu muy màcc am na leneen lu mu jàpp moo tax mu ne bu leen jàppee seen jëf yooyu ngeen di jëf ne kat jëf yi mën na leen yóbbu fii wala mën na leen yóbbu fële donte nag jëf lu baax la nit ki dafa war a jëfe nit ki dafa war a wone ni nga xam ne noonu la bëggee yàlla sunu boroom nit ki dafa war a jàpp ay ndigaale yàlla sunu boroom bàyyi ay tereem wante yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax nañu kat ni ngeen di jëfee na seen xol mel noonu moo tax mu ñuy wax ne kat bu dee ci kaw ay jëf la rekk kon matuñu ndaxte nit mënul mat ci kaw jëfam nit mënul mat ci kaw jëfam jëf mënul tax nit mat ba mun a ndamu fëgg dënam ne kat man mii mucc naa texe naa lii dama ko yayoo yàlla sunu borom ne ubbil naa leen buntu xéewal buntu yërmande muy seydina isa almasi bi yeesu christ mu ne kat def naa ko ab sarax def naa ko caabi ji nga xam ne mooy ubbi buntu mucc def naa ko yiw goo xam ne dana wàll si ci seen biir jëmal leen ci man te képp koo xam ne gëm nga ko gëm nga ko kooku dana mucc dana texe moo tax mu ne mucc ji lalu ci kaw gëm te gëm googu mooy nga gëm ci seydina isa almasi bi yeesu christ moo tax waa jooju nga xam ne dem na bay sukuraat nga xam ne ay simili rek a ko dese woon waa ji ne ko man de gëm naa ci yow fa nga jëm bëgg naa ànd ak yow mu ne ko texe nga ndaxte da nga gëm te maa ngi lay béral ne kat tey jii da nga toog ci pekkaaru pekkaaru yàlla sunu borom mbokki auditeurs yi ñu jàpp foofu njàngale boo xam ne wax goo xam ne bu am solo la yàlla sunu borom wax ñu ko yàlla na sunuy jëf di rafet maa ngi ñaan yàlla sunu borom mu def ñu ay jëmm yoo xam ne képp ku ñu xool naw sunuy jëf wante maa ngi ñaan yàlla sunu borom ci kàttanu xel mu sell bi mu ubbi sunuy xol leeralal ñu ba ñu xam ne seydina isaa almasi bi yeesu christ moom mooy buntu mucc mooy buntu texe gëm ko nag ab jëf la nekkat gëm naa ci jëmm jooju loolu jëf la jéego la goo xam ne képp koo xam ne séq nga ko ah na la wóor nekkat bu boobaa yàlla sunu borom nee na sama yiw wàcc na sa kaw te da nga texe moo tax yàlla sunu borom ne danaa firndeel sama mbëggeel danaa firndeel cofeel yi nga xam ne am naa ko ci yéen donte nag mën naa leen topp lu bari ci seeni jëf wante mbëggeel bi ma am ci yéen cofeel ji ma am ci yéen ñi nga xam ne maa leen sàkk jox leen martaba boo xam ne joxuma ko kenn maa ngi leen di wax ne danaa fésal mbëggeel boobu cofeel jooju danaa ko jëmmal wàcceeku ci seen biir muy seydina isa almasi bi yeesu christ mu jël loolu lépp nga xam ne defoon ngeen ko moom mu gàdd ko ngir ngeen woyof mën a ñëw ci man ngir ngeen woyof mën a jot ci sama yiw ngir ngeen woyof mën a mucc jëmm jooju mooy seydina isa almasi bi yeesu christ kon ma delluwaat tëjee waxtaan gi saar bu am solo bi ñu jàng te mu nekk ci kóllëre gu bees gi ñu tuddee ko nouveau testament nekk ci bataaxal bi ñu jagleel waa Efes ci aaye ñaar ci saar juróom-ñett yàlla sunu borom di wax foofu ne ndaxte ci sama yiw ngeen muccee ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen sama may la du payub jëf ngir kenn du ci kaañu yàlla na yàlla sunu borom yiw wéy di wàccee ay yiwam ci sunu kaw ñun ñépp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci biir Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci biir banlieue bi yal na yàlla sunu borom raxas xol yi ubbi xel yi ba nga xam ne may goog nga xam ne may nañu ko muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ danañ ci jot danañ ko jël te moom mooy buntu mucc mooy buntu texe wasalaam seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35